Ah, jërëjëf ah, mbokk yi ñoo ngi leen di ah, ndokkel di leen ñaanal jàmm di nuyu àddina wërngal di leen ñaanal tawféex rawatina waa biir réew mi ak biti réew ba tey Gambian talent TV bi ñëw ànd ak yéen ci li nga xam ne mooy Touba waaye comme nañ leen ko waxee woon ci waajtaayu màggal gi mbokk yi noonu lañ fas yéene gunge ak yéen rek ba daal di ñuy ak màggal gi tey nag yemook ñaar fukki fan ak juróom benn di bisu dimanche si atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn fukki waxtu ak benn jot ba tegal juróom fukki minute ak juroom ben way ci gattal daal ñoo leen ndokkeel baax di leen ñaanal rawati rawatina njaboot gi nga xamne ne ña nga fofé ci diwanu gambi waaye njabotu senegal bi yépp ñoo leen di dokkel di leen ñaanal jamm de gungé wante ak yeen ci li nga xamne moy gambien talent tv and ak sama doomu ndey modi di moodu mbay garmi waaye mbokk yi ñi xamne dal serigne touba suñu borom may na ko waaye serigne touba dal nek na ko xamne ku nek la suñu borom la ta mbokk yi dégg ngeen ñi faral di wax ne man kana lillahi kana lawlo ku nekkal yalla yalla nekkal kon nak lolu leer na ni ki tay serigne modou mbay garmi mi ñong lay ndokkee di la jam ma ngi lay euh fay di la siyaare ci bëss bi di siyaare it mbokk yi ñuy seetaan file ci Gambian talent TV euh, nit ki ñu leen ko waxé won rek dinañ leen wan euh, li ëpp solo ci euh, magal bi euh bu dé sax lépp am solo waaye daañu def ñu jéem katan ba wan lañ ko tay ci lañ nekk ni le mu dee nekk ci juma Touba ku xam ne tey mooy bisub màggal gi euh, ku xam ne euh, mbooloo mooy dajee fi nga xam ne rek euh, mooy Touba waaye rawatina fi lee nga xam ne moo di si jumaa ji ndax képp koo xam ne màggal si nga te yeggu soo fi da ngay daal di rek sikki sàkka sikki sàkka sa màggal si moo waral mbooloo fi dajee boo xoolee àdduna fi dajee ñëpp a ngi fi euh, foo sànni rek Mbàkke mu tagg ñëpp ngi fi boo xoolee barab ba ngay gis ne de mooy barabu euh, Serigne Saliou Mbàkke bi gis ne rangi nu mu bëree ku nekk dugg rek ko taataan di ko daagaan sa sa soxla di ko ñaan sa xoolee it fële ca kanam moom gis fa nga ne moo di barabu euh, Serigne Fallou Mbàkke bi foofu it nit ñi dañ fay dugg di daagaan li nga xam ne rek moo di seen seen i soxla waaye li ci mën te am rek yàlla na soxla yëpp faju Djity TV Gambian Talents TV ni ñu leen ko waxee rek doolay askan wi daal di rek ñëw file ci Touba Mbacké euh, sëriñ Moussa ngir rek wanale leen euh, li fi xew waaye wan leen it euh, jaar-jaari sëñ bi ba li waral li nga xam ne rek moo di màggal gi sëriñ si. Ah, jërëjëf ah, sëñ Modou Mbaye Garmi ñu ngi am kontaan ak mbégte gannaaw ba nga xamee ne ñëw nañ fii jàmbarloo fi nga xam ne mooy diwaanu Touba waaye ñu gis ne lu naaj bi tàng-tàng askan waaye génn nga xam ne daal ah, sëñ Bamba jaral na leen waaye ci gàttal dama leen daagu ndànk dem foofu ci diwaanu Sam nuyu askan yi nga xam ne ñoom nee nañu léegi daal ñoo ngi ko kal fi nga xam ne mooy Gambian Talents TV ku ci mel ni Jibi Mbaye maa ngi koy ndokkee lu baax di ko ñaanal jàmm ah, soxna Maria moom itam maa ngi koy siyaar ñoom Pape Sarr Papis ñoom ñëpp maa leen di ndokkeel Moussa Gueye nuyu naa ko baax di ko ñaanal jàmm ah, léegi ah, sëñ Modou Mbaye Garmi loo ñu a andil ci histoire ki nga xam ne moo di Seexul Xadim Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasul ak lan la jaral askan bi ba tax na lu mu métti métti waaye lu mu tartar askan wi daal danañ jaayante lan moo waral loolu sëñ Modou Mbaye jërëjëf Moussa laaj nga ma laaj bu bu jafe waaye neex na tontu ci mu sëñ bi ay jaar jaaram lépp da koo da koo jàngale ay jaar jaaram lu ñu bind la ay jaar jaaram du lu ñuy du lu ndax euh, li wolof di wax li ne fàng kenn du ko géej euh, du ko jeex euh, sëñ bi li waral màggal gi ñu bari xëy na léeg-léeg sax am na ay sew sew ay sew sew mooy am na lu ci nit ñu bari xamul ñu bari dañ defe ni sëñ bi ginnaaw ba mu muccee ci loxo tubaab bi la wax mu santale ko boromam déedéet waaye sëñ bi demam gi lay màggal maanaam ba ko nattu dalee mu xam ne kenn du tegee nattu ku dul boromam mu yàlla buur bi teg ko nattu ngir rek ànd ak mu ànd ak tubaab bi te ànd ak tubaab bi ñëpp yëg nañ la ca xew looloo waral li nga xam ne moo di màggal ji ba muy dem mu ne bis bi lee nga xam ne moom lañ ma jàpp fas yéene maa génne si sama kanamu njaboot yóbbu ma ci tukki boo xam ne dina lëndëm dina metti waaye ma ànd ak sama borom ak rasulullah bu jël si waatee na ngeen ma ko rek màggal na ngeen ko màggal na ngeen ma santal loolu moo waral li nga xam ne rek moo di màggal gi màggal gi nag euh, euh, euh, ñëpp xam nañ noonu daan am ci dëkk yu bari daan am ci ci ci yoo ci koñ yu bari ci ci réew yu bari waaye ki nga xam ne rek moo di sëñ Mamadou Fadel Mbacké muy sëriñ Fallou moo rek daal di wax ne nañ ko di màggal see fi nga xam ne rek moo di Touba Mbacke kooku moo nekkoon ñaareelu xalifa Serigne euh, Touba bi moom moo joxee daal di ndigal boobu ne képp koo xam ne mën na ko ak fu mu la mën di fekk boo mënee ñëw Touba fii ñu màggal si sa ñu màggalal borom bés bi bésam daal di ko santale li nga xam ne moo di yàlla ki nga xam ne rek moo di Serigne Touba ba muy wootee màggal gi daal dina wax ne xeebuma li nga xam ne moo di ginaar waaye yéemuma li nga xam ne moo di gëlëm euh, képp koo xam ne yor nga na nga def berne togg yóbbu ko nit ñi lekk koo xam ne it boo toggee mënoo yóbbu na yem ci sa njaboot waaye képp koo xam ne mën ngaa togg berndeel jox nit ñi ñu lekk ba suur nañ joxe waaye képp koo xam ne di yoroo loo toggee na nga daal di dem fa ñuy toggee ñu togg jox la nga daal di rek xéwlu lépp ñu jublu ci sant ki nga xam ne moo di suñu borom ba boo xoolee tey ci suba eh, dinañ leen ko wan sànq ci biir eh, gis ngeen xasida yi nit ñi toog def ay kurél di jàng li nga xam ne rek moo di ay xasida euh, euh, ngir rek sant borom bi gis ngeen ñun ñi tamit lal fi nga xam ne mooy euh, ci ci tant yi ci baas yi ngir rek jàng li nga xam ne moo di alxuraan ndax lépp daf ci bokk mooy dundal sunnas rasulullah waaye li nga xam ne it mooy jàng alxuraan màggal borom bi màggal borom bi xam ne moom rek moo mën a tege nattu waaye moom it moo la mën a aar ñag la ba bu la tegee nattu kenn du la ci mën a daal di rek lor loolu la sëñ bi te foofu la sëñ bi jaar ak boromam foofu la sëñ bi jaar ci ay natt ba ki nga xam ne moo di porom bi daal di koy rek teggil natt yooya tax tey jile muy woote màggal gi boo xoolee nag woote na ko waaye ñëpp ñëw nañ woote na ko waaye ñëpp wuyu si nañ woote na ko waaye du nit ñi rek ñooy wul ci ndax da nga dégg ci nit ñi di la ne la sëñ bi bu wootee euh, du moom rek ñëw du nit ñi rek ñooy wuyu si waaye am na ñeneen ñuy wuyu si ñan la ndax dafa am esprit boo xam ne faaw nit ñi di ko jàngale ñu mën di ko xam sëñ bi wootewul wootewul caaxaan sëñ bi wootewul am po euh, ndax bokk na ci lam njëkk a bañ lépp loo xam ne day dajale nit ci ay caaxaan sëñ bi da ko dàq Touba euh, euh, sëñ Moussa nga déggee ci ne Touba kenn du fi fubal nga déggee ci ne Touba kenn du fi sol lu yiwul nga déggee ci ne Touba kenn du fi tux loolu lépp bokk na ci lu sëñ bi jàpp ne daanaka bu ko wootee boo boole ci yooya day nur am po bokk na ci sëñ bi daal di ko rek dàqalu fi nga xam ne moo di dëkkam bañ na ko ba dëkk bi le sëñ bee ko sàcc sëñ bee ko wut sëñ bee ko wut ba gisal ko muy Tuubaa mu daal di fi sàcc bokk na ci tëkk yi nga xam ne eh, ñëw na fi donte ge sax yàggu fi ndax sëñ bi dafa yàgg àll sëñ bi yàgg na àll ci ay natt mm. waaye bu mu ñibbisee it ñëw na Tuubaa jaar na Tuubaa def na Tuubaa ñaan na fi boo demee fi ñuy wax ci benn xasidaam bi nga xam ne moom mooy matlabul fawzayni boo ko jàngee di nga dégg li ci sëñ bi wax di nga dégg ci sëñ bi doon ñaan ngir rek fàggul ko fi nga xam ne mooy Touba jàngal ma matlabul fawzayni nga daal di méngale tuubaa tey ak ba koy sëñ bi di bind nga xam ne kon la sëñ bi waxoon sëñ bi visionnaire la maanaam gis-gisam dafa xuutoon dafa demoon ba jéggi dayoo dafa demoon ba romb suñu gis-gis sëñ bi fa mu daan gisee mbindeef daawu fa gisee ndax it fa mu daan gisee du nit kese fa daa sëñ bi nitu yàlla la euh, euh, euh, sëriñ Moussa xam naa damay yemandi fi la di la xaar bu fekkee am nga beneen laaj waaye di wax rek ne Gambian Talents TV Moussa gis nga nit ñi ñu ñëwee waaye gis nga ni Gambian Talents TV jéego yu mu def rek ngir mën leen wanal li nga xam ne rek moo di xew fi léegi ci Touba Mbacké ah jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi ñoo koy ndokkee lu baax a baax macha allah ci leeral yu am solo yi nga xam ne ah, jot na ko rusal waaye mbokk yi nag ah, bàyyiñu leen ah, benn yoon màggalu Touba nag comme li waral comme ni ko Modou Mbaye waxee rek mu di Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasul moo waxal ne bis bi daal heure bu mu jotee nañu dajee santale ko sunu borom bi subhaanahu wa taala yàlla nag bokk na ci li nga xam ne mooy ay xéwal ta jox nit ki ñam mu lek bokk na ci jaamu yalla yu gëna nangu motax ki di si amadou bamba khadim rasoul ba muy diglé ay bernde bokk na ci li nga xam mo moo waye nak rawati li nga xam moy mooy jàng alquran jàng xasida sëñ tuba nekkoon koo xam ku wéetoon yalla sunu borom be subhanahu wa taala la ta gannaaw ba nga xamee touba bi ñëw na fi daal di koy yobbu ñepp jappon na ne seigne touba dotul ñëw mu doon lo xam lu jaaxaloon askani waye lepp lo xam rek manam ay coono la waye lepp lo xam ay nat la sëriñ bi dañ nako waye waaye ba nga xamee ne na ci ci coono yooyu la mu wax mooy jéggal na képp koo xam ne rek ku ko doon final la Modou mbay mu nekk loo xam ne lu jafe-jafe la ndaxte jamono jii ah, gis na ne ku jekk sa morom ah, danga koy wëlbati rek loolu ñu naan wëlbeet gànga waaye Cheikhul Khadim gannaaw ba nga xamee ne ànd na ak nasaara ni ba mu paree la mu wax mooy jéggal naa leen jéggal naa képp ku ma tooñ kon a Cheikh Ahmadou ma daal ah, kenn du moom loo ñu mën a andi ci li nga xam ne mooy jekku baale sëñ Modou Mbaye euh, daf ñuy jàngal sëñ bi dafa ñëw sëñ bi li ma la doon wax missionnaire la hmm. sëñ bi daf ñu jàngal ci pàcc yëpp boo demee ci wàllu politique sëñ bi jàngal nañu nan la ñuy defee politique boo demee ci wàllu koom sëñ bi jàngal na nañ la ñu wutee koom te mu lew la boo demee nag ci wàllu esprit eh, eh, li nga xam ne rek moo di baale jéggale sëñ bi jàngal jàngal nañu ko mooy ba mu demee ci tubaab bi ak li mu ko daj ndax ñu jël la exi exilé la maanaam doxal la ci say biiru mbokk doxal la ci say biiru nawle doxal la ci say biiru dëkkandoo dafa métti loolu rek amul nit ku ko mën a ku ko mën a ku ko mën a ku ko mën a ku ko mën baale euh, euh, euh, amul nit ku ko mën a baale mooy toxal la ci say biir mbokk toxal la ci say biiru dëkkandoo sëñ bi ñëw baale ko lan lañu ñu jàngal foofu mooy nit ki bu la jekkoo def la lu ñaaw ngir ñàkk xam boromam yow boo ko boo ko boo ko jekkoo baal ko ngir xam sa borom waaye wan ko kan mooy sa borom waaye waxal ko it kan mooy sa borom loolu la ñu sëñ bi jàngale ba tax na ab murit jàngal nañu du du fayantoo lu jiitu loolu sax ab jullit la ñu njëkk wax ne du fayantoo waaye rawatina ki nga xam ne moo di murit te sëñ bi lépp luy jéggale sëñ bi moom la ko defal sëñ Moussa Ah, jërëjëf ah, sëñ Modou gar mi ba tey ñi nga ànd ak yéen li nga xam ne mooy ah, waajtaayu wala sax màggalu ko Touba comme ni leen ko diggee woon tey di ñaar fukki fan ak juróom benn ci bésu dimanche bi tombeek atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn adduna wërngal këpp di laam-laamee li nga xam ne mooy corona waaye daal moom corona gannaaw ba nga xamee ne wàcc na ci adduna ak tey teewul daal ñi nga xam ne ñooy waa Touba ñoom gëm nañ suñu borom waaye ànd ak li nga xam ne mooy dogal yàlla bi di màggal màggal gi nga xam ne moo di màggalu Sëriñ Bamba gi ndaxte ak sant yàlla la ndax feebar war na koo mën a dàq déedéet moo tax daal ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Mbacké gannaaw ba mu joxee ndigal ne màggal gi dana am murid yëpp a daal ànd daal di kontaan waaye ba tey sëñ Modou mbay bunt yi nga xam ne moo wër jumaa ji foo dem askan waa ngi rang pour bëgg a dugg si jumaa ji lu naaj bi tàng-tàng gaa yi ñu ngi koy jëngu ndeysaan kon lan nga mañ mën a andil ci loolu noonu rek muy askan yi daal ba tey bëgg nga xam ne moom lañ bëgg sëñ Touba loolu moom kenn du ko laam-laamee waaye nag sëñ bi jaral na leen maanaam muy taw muy naaj danañ def pexe ba bàyyi ko fi nga xam ne mooy seen i gox goxaan ñëw fi nga xam ne mooy diwaan Touba ndax tey di àdduna wërngal këpp foo dem wér na àdduna wërngal këpp foo dem géy na ndaxte ñëpp a ngi màbbu jëm fi nga xam ne mooy Touba waaye gis ngeen jumaa ji tamit na mu taaroo tey ji buñ ko xaymaa ci ay at ñaata at la war a am ak dëkk bii di bu buñ ko xaymaa ci ay at ñaat at la war a am xam naa du ñu mën a jàpp date bi waaye sëñ Mourou Mbaye loo ñu mën a andi ci loolu xam nga tey boo xoolee wax nga ci nit ñi ni ñu ñëwee te mbas am fi loolu moo lay waral ne sëñ bi euh, doxul ci caaxaan ndax sëñ bi dafa am ko waxoon ne la solution sénégalaise c'est xadimique maanaam li nga xam ne moo di solution bi xaadimul xaadimul xadim la mhm. waaye ma na laan xaadimul euh, euh, xadim li mu jàngal nit ki mooy yàlla rek moo am euh, ku dul yàlla neen la te yàlla mooy tege nattu mooy it mooy teggi nattu sëñ bi ci ay nattu moo ko taxoon a génn fii bu déggee loolu taxoon sëñ Moussa Ka mu ne nattoo di kerkeraanu awliyaay nit ñu baax ñi bu yàlla di natt seen maxaama ci ay nattu la koy nattee et eh, ba nattu boobu sëñ bi daal di koy daal di koy jàll kon mbas nattu mbas nattu la sëñ Moussa. te boo bëggee génn ci boo bëggee génn ci nattu sëñ Moussa. Hmm. Ah, da ngay da da ngay da ngay daal di ànd ak yàlla. dem fa ñu koy màggalee nga ñaan yàlla mu faxas nattu kon màggal gi soxlawul ñu koy ñu koy ñu koy ñu ñu koy fomm ndax dañ fiy ñaan yàlla dañ fiy def lépp loo xam ne mbiru yàlla rek la euh, sëñ Moussa. Hmm. loolu rek la jërëjëf ah jërëjëf ah, sëñ Modou Mbaye ñu am kontaante ak mbégte ba tey ci gannaaw ba nga xamee ne suñu borom dogal na ah, ñu fekkee li nga xam ne mooy màggal gi waaye màggal gi nag ah, muy dëkk bi nga xam ne moo di dëkk Serigne Touba dëkk bi Serigne Touba moo ko sañcal boppam moo tax ndeysaan lépp loo xam ne bëgg-bëggam la rek maanaam dañ koy doxal fi nga xam ne mooy diwaanu Touba waaye ba tey àddina wërngal këpp rawatina mu di ay télévision lépp loo xam ne daal businessman la wala képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci mbir moo xam ne bëgg nga mu yokk daw nga ñëw fi nga xam ne mooy diwaanu Touba ah, màggalu Touba mu doon loo xam ne day yokk ci koom-koomu Sénégal màggalu Touba doon loo xam ne li muy dugal ci diwaanu senegal bëri na waaye rawatina ci yeneen réew yi nga xam ne sax maanaam dëkkuñ ci bokkuñ ci tubaa Touba ah, am na loo xam ne màggal ga ma ko fay dugal ah, kon loolu moo waral loolu mu di barke kon daal li am solo mooy barke rek moo am solo waaye ki nga xam ne ne moo di Serigne Bamba Xaadim Rasul gannaaw ba nga xam ne ne jaayante na ak sunu borom bi subhaanahu wa taala lépp lu mu bind ci ay xasida daal di koy tagg ci ki nga xam ne mooy njol màkk ah, sëñ Modou Mbaye Garmi loo ñu mën a andi ci Serigne Touba bëgg nga xam ne bëgg na ko njol màkk sallallahu alayhi wa sallam waaw sëñ bi bëgg gi mu bëgg njol màkk mu lay wan ne sëñ bi mosul ndax bu xoolee sëñ bi juróom benn at yu ne da ci daan tàgg yonent bi juróom benn at yu ne mu julli ci yonent bi sallallahu wa sallam te xam nga li yàlla wax ci julli ci bi yàlla ci jëm boppam moo ne ñu ju moo moo ñu sant ñuy julli ci yonent bi kon sëñ bi loolu tax ki nga xam ne moo di boromam waaye it looloo mu wekk nga xam ne moo di sallallahu alayhi wa boo bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam moo ko daan ci yoon bi yëpp sallallahu alayhi moo ko daan moo ko rassuré ci yoon bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko moo ko teg fi nga xam ne euh, foofu foofu foofu la tegu moo ko jàppale euh, ci yoon bi lépp lu ci am lépp lu ci mucc ganaaw euh, boromam sëñ bi moo ko amee ci fonk yi mu fonk rek ki nga xam ne moo di rasulullah loolu li mu ciy jàngale ndax sëñ bi nee naan léppam jàngale la sëñ bi si jëm am yoo xam ne daf ne la boo bëggee doon murid doon loolu pour sànni faa nga yooyu yéen la bokk na ci mu ne nga ginnaaw bi nga gëmee sa borom fonk waxtu juróom fonk alxuraan fonk rasulullah waaye fonk li nga xam ne moo di wéeru ko waaye fonk aji màkk kon daf lay wan ne leen boo bëggee doon murit dëgg faa nga doon jullit dëgg doo ko doon murit dëgg. ah jërëjëf sëñ Modou Mbaye Garmia ah, ba tey duñu la bàyyi benn yoon ah, sëñ Modou mbay lan ngay digal ndaw yi nga xam ne dañoo fay seen paas ah, waaxu ñëw fii ci duwaaru Touba waaye dañoo ñëw pour sàcc andi leen fi am na yoo xam ne dañoo ñëw pour jël alali jàmbur ndaxte ñu ngi koy jàmbat loolu ndax bokk na ak màggal gi wala ndax loolu bokk na ak bëgg-bëgg ki nga xam ne mooy borom màggal. Serigne Saliou Mbacké nee na woon hmm. bu màggal jotee bu weesu na nga ma na nga xool ki màggal dinañ xam ku màggal ak ku màggul woon. loolu lim ci lim ci wund mooy lim ci doon wund mooy bu ñu màggalee ba ba ñibbi ñi ñi ñi màggal woon ak ñi doon raar si démb dinañ leen wutee ndax boo màggal see lépp loo fi ñaanoon. boo ñibbee daa ko gis balaay ren di déwén. waaye boo màggal see di dafi leneen boo ñibbee daa ko gis ndax fa nga yemoon rek boo ko yéesul doo yokk. kon képp koo xam ne ñëw nga fi na la fi màggal si rek tax a na si rek tax a ñëw bu boobaa lépp loo fi ñaan ci ci kàttanu yàlla ak borom bés bi eh, di ko am. ah jërëjëf ah, sëñ Modou Mbaye Garmi ñoo ngi koy ndokkee lu baax di ko la ñaanal ah, jàmm xam naa ne mbokk yi. Ah, du yag dara ah, dañu len di ah, joxata dik dajé ndax bëgg na len di gënal yenn ay place yi nga xamné mo wër jumaa ji waaye mbokk yi comme niñ ko waxé rek ñi ngi fi nga xamné moy diwanu Touba and ci ak ñi nga xamné way Gambian Talent TV mi nga xamné comme niñ len ko waxé lepp lu xew ma nga ja mbokk yi nak maglu Touba gi képp nga xamné ñëw nga fi mo xam nga tabbi sa ñak mo xam nga ñëw wala li nga xamné ne magal gi rafet nañ jot manam da nga yokk borom magal gi moko ñaar suñu borom ta suñu borom bi bi ah, nangu na ko ah, kon li leer ba leer mooy askan daal waaw kon ah, mbokk yi dañuy doxantu rek gën a gunge wante ak yéen Ah, ci li nga xam ne mooy ah, màggalu Touba ah, atum ñaari junne ak ñaar fukk ak benn waaye nag tey ñu am kontaante ak mbégte a ba nga xamee ne maa ngi ànd ak sama doomu ndey mu di Mohamed Mbaye Garmi ba tey ñu ngi ko ñaanal baax a baax waaye di tamit ndaw ya nga xam ne ñoo nekk ci réewum Turquie maa leen di ndokkel waa États-Unis rawatina foofu ci diwaanu France Italie ba Argentine ba Brésil maa leen di ndokkel baax di leen ñaanal jàmm waaye ndeysaan mbokk yi daal comme niñ ko waxee rek sunu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne moo dogal askan wi teew yàlla ñu yàlla defal jàmm lépp luñ fi ñaan rek yàlla na ko suñu borom nangu ci barke borom màggal gi jumaa ji ngeen di gis nag saan moo am ay taar ci ay wute am na ci ñoo xam ne ñi nga wax ne 1927 ci lañ fondement li nga xam ne mooy jumaa ji ah, en 1948 ah, diggante boobu noonu dafa xawoon a taxaw ba 1963 ci lañ ubbi li nga xam ne ah, mooy jumaa ji ci ay taarix yoo xam ne xaw na wuute waaye mbokk yi histoire Touba wala ki nga xam ne mooy Seexul Xadim neexut a xam maanaam daal dañuy raas ba keroog ñuy daj wala ñuy raas ba waaye sëñ Bamba daal suñu borom def na ci moom ay kemtaan yoo xam ne maanaam daal doy na waar di ko nab nable waaye daal ci bu baax a baax a ba suñu borom warsagal nañu waaye kattanal nañu ñu fekkee li nga xam ne mooy màggalu Touba gii. Ah, mbokk yi Moussa jël rang bi ñi ñi ngi jëm di siyaare ngir rek dem siyaare ji Serigne Saliou Mbacké. ndeysaan mooy borom jamono. Mm. Euh, kooku la ñuy dem siyaare ji ki nga xam ne moo di borom xel kom. waaw kooku it am na looy mën a jàng ci moom. Ah, mooy kii dàqoon a bay. ci mm. Sénégal. Mm. li mu daan bay ci hectare ay junni hectare la daa bay. ay jinni hectare la la bay fa nga xamne modi moo di mm-hmm. koy borom jamono mm-hmm. koy borom jappandal ak xaban fele moy barabam bi fa la gay jëm ngir rek euh, faj euh, daagaan seeni soxla te it dana ko nangu ndax mm-hmm. euh, nit la ku yalla baxalon mom momé di Serigne salim Mbacke gis nga rek ni ko nit ñi bëgge ak ran bi mu guddee ndeysaan a ah, jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi a ah, tuddu nga ko xamne boko tuddé rek askan wi daal di ah, jooy mu di Serigne salim bi nga xamne bu fekke comme comme aduna la won mën nañu wax ne moko ëppalé won waye bu fekke tamit ki nga xamne mo gënon na a ci aduna suufeel bopam amana ñu wax ne mooy Serigne Saliou mi moo ëppoon yërmande ba ñaari ganaar sax bu ñuy xeex moom Serigne Saliou rongañoom dañuy tuuru kon kooku buñ ko tuddee rek ah maanaam daal tudd nañ ki nga xam ne mooy yoonu murit waaye tudd nañ ki nga xam ne tamit moo woon Serigne Touba ndaxte Serigne Touba daal ah, doon na koo xam ne am na lu bëree bëri loo xam ne dëxëñ na ko si njaboot gi waaye la mu dëxëñoon Serigne Saliou tamit wax dëgg yàlla kenn du ko laam-laamee kon sañ Modou Mbaye da nga tudd fu ama am solo Serigne Saliou moomee looñ ci mën a andil ci gàttal euh, li ma la ci andil mooy mhm. gore lima andil moy mandu mhm. lima andil moy soufé mhm. ndax euh, lolé mom la dafon te dama lay euh, juma liggéey tu juma yi touba ji bañu ko sumbé mom mhm. joxé na lu tollu ci téeméeri milliards ndeysaan mom Serigne Saliou te moso gis mu sol yéré bu baax nga bal ma ci carte bi way ngir nga dégg lamay wax sol yéré bo xamné koko gis di nga ki ki modi Serigne Saliou ndeysaan te bokon na ci domam yi nga xamné ci doomi sëñ bi sëñ Touba yi nga xamne mom la sëñ bi waxoon ne mm-hmm. salu sama dooma mom mm-hmm. la sëñ bi euh, bàkkoon mom moo daan wax ne jox len ma ndaw ñi ma def li sëñ bi def ci magni ñi mm-hmm. kookoy sëriñ Saaliw borom yermande loolu ci jang moy liggey ñak jariñ da daan ñakal bopam di jariñ ah, kon mu du may dafa melni ba dafa melni rangi rangi gaangi ngi dukkat jël fi nga xamne moy mooy bërëbu sëriñ Saaliw rangi foko ko natt weesu na ndax rangi génn na ba ci biti juma ji dem na ba daaray kamil sori na sori na lol waye kañ fay fekke ko jar ndax loko wo loo ko wax mu wuyu la ndax mm-hmm. juboo naak boroomam mm-hmm. yegg àgg naak boroomam foo xam ne lu loo ko wax mën na la ko daal di rek euh, fajal ci kàttanu Yàlla jërëjëf ah jërëjëf Mohamed Mbaye Garmi ah, ñong koy ndokkelaat ah, di ñaanal ah, jamm waaye di nuyu képp ko xamne rek fi nekk fi nga xamne moy diwanu Touba ñoo leen di ñaanal jamm di nuyu nak Baye Fall yi nga xamne ne car macha allah ñoo ngi ram jëm fi nga xamne moy Barabo Serigne Saliw waaye di leen ndokkeel di ñaan lepp lo xamne ñaan nañ ko fi yalla na suñu borom nang ko waaye lepp lo xamne nit taaral nako fi rek yalla suñu borom bi def ko fi ni nga xamne ne ñoo ñëw màggal si yàlla na ñibbi jamm ci barki Cheikhul Khadim darajaay njool Makka sallallahu alaihi wasallam, Mohamed Mbaye Garmi naaj bi tangana na waaye lu mu tàng-tàng Bamba jar na ko ndax lu fi waay daj rek Serigne Touba daj na lu ko raw ah kon mbokk yi daal dama naan coono yi nga xam ne moom la askan yi daj ba màggal si coono yooyu ay xéwal la ndaxte lu waay daj di ko jàmbat sëñ ba dajoon na lu ko raw noppi ah kon loolu tamit doy na ak sant suñu borom subhaanahu wa taala ah di ndokkel askan yi waaye di ñaanal tamit nit ñi ñaanu jàmm a mbokk yi xam naa da leen di jox dig dajee ci kanam si kàttan suñu borom seen doomu ndey Moussa Jinne Gambian Talent waaye ànd ki nga xam ne moo di Mohamed Mbaye Garmi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf